Mamadou Mouhamed Ndiaye bu TFM. waaw du ma ko ko baal ba keroog àllaaxira. wallaay maman man du ma ko ko baal te su ma ko mënoon a porter plainte dinaa ko porter plainte. wallaahi ndax ci Macky Sall la ñuy njëkkee ñëw man mii du ma ko ko baal. wallaahi maman du ma ko ko baal ndax journaliste. dafa war a wax dëgg. Mhm. informé juste la ñu wax si journaliste. Mhm. mais waxuñu journaliste boo xam ni tu es un corrompu. Mhm. naan moom moo yore fonds yi. lu mel ni ko yore ay milliards wala ko yore ay millions. jour boobu ba mu koy wax maa ngi toog biir chambre 2. ba ñuy génnee sama foto ñi ma nekkaloon ci chambre bi sax xamuñu ni man la parce que photo bi ñu doon génne dafa dama xeesoon. Hmm. dama jël sama col bi ma doon jullee jeewee doon julli dama jël col bi ko benn détenu bu fa moo ni kii mooy Ami Dia. ma ne ko déedéet bu bul def noonu bëgguma nit ñi xam ko mu ne ma looy nëbbatu defoo dara. kooku dama doon toog ak moom si biir kaso bi di waxtaan ak moom. ñu yàq sa dund nii. Mm-hmm. tëye la au 12 juillet 2022 lañ ma tëyee. Mm-hmm. ba weer bi dee. Mm-hmm. xamuma ñu dugalal ma sama salaire ma toog fa un an neuf mois. ba ma génnee ak sama feebar parce que dama am jabet. ba ma génnee hospitalisé naa Abbas Ndao. 15 jours. ma génn ba ma génnee toog fii quinze jours laa dem sama banque di xool. ñu ne mois de juillet la ñu dagg sama salaire. est-ce que. imaginer waa Pastef nag maa ngi leen di gërëm aw ma seen fay sympathisants yi aw ma seen fay. Mm-hmm. ñooñu topp ñu nekkoon di ñu toppatoo. waaw manqué wuñu fa dara. Mm-hmm. ni ñu doon dimbalee yenn détenus yi sax grâce aux militants de Pastef. dëgg wér. grâce te yow xam nga ci dara. bu baax a baax a baax maman. sama borom kër ma ko nag bu baax ndax day liggéeyi ba treize heures quatorze heures ma woo ko téléphone wax ko li ma soxla mu indil ma ko. te li bëgg rek la indil. su ma ko nee noppalul sax su ma sax day bañ. Mm-hmm. te bëgguma woon mu feeñ benn yoon si média yi. ndax fii moom bu fi feeñ rek mooy loolu. di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax moom magam bu jigéen. mu ñoom ñëpp sama waa kër mosu ñoo rate visite. mosu ñu rate benn visite. boo leen yërëmee sax da nga leen di wax toog leen ngeen noppalu mais duñu noppalu sama yaay feebar na mhm. ñu perfusé ko mm. loolu wóor na benn gàtt bu fa nekk mhm. dañ ko perfusé dimanche ba lundi mardi mu ñëw visite maa ngi koy gis muy soof di ñëw ndax mënul woon a dox sama rakk bu jigéen bi say tuuba moo téye woon si loxo ndax loolu bëggul woon rek ma xam ni moom dafa feebar magum yàlla jëm liggéey fonction publique ba retraité impôt et domaine la nekkoon. Mhm. nekk femme bu brave femme bu. wallaahi servir servir nation ñëpp ko xam mhm. madame Guèye Mati Diagne ñëpp ko xam. biir mhm. impôt et domaine. waa impôt et domaine yëg ni doomu Mati Diagne la woo nga woo ko di ko defal. man bravoure bi mu nekkee rek daf ma jaaxaloon. wallaahi. billaahi c'est la première fois ba ma ba tey tey laa mos a di wax ñëpp di ma dégg te grâce à toi. wallaahi. coro ma xam naa ni la wax loo tey il faut ma dëgër pour mën a waxtaan ak yow ma wax mais lii dafa metti dafa metti injustice am Sénégal dafa metti dafa metti tey jii ma déggee ñu naan dañoo détourné ay deniers publics di tudd ay milliards man benn trente mille francs bu ma envoyé benn xale bu nekk Pastef ñu téye ma si presque deux ans quelle injustice quelle injustice noonu mhm. trente mille francs yooyu nii man bañ ma ne Momadou bañ ba garde yi ñëwee ne ma suba da ngay dem enquête. Mhm. ba ma demee. Mhm. sept heures trente ba dix huit heures trente. Momadou Seck lu ma tëyee biir bureau matul trente minutes. daf ma ne yaa yónnee trente mille yaa yónnee vingt mille yaa yónnee dix mille franc ma ne ko yónnee wu ma ko. Mhm. trente mille bi man maa ko yónnee. te maa ko jox xale yi pour ñu pour ñu def ci seen transport man maa man lii laa wax fee lii laa wax ak fii. amul différence. ma ne ko man nag dama bëggoon nga wax ma lan moo tax ngeen téye ma. te yow ba ma ba may ba may bañ may bañ may defeere mandat dépôt da nga ma di le huit août. dinaa la dinaa la woo parce que législative yi di ñëw. Mm-hmm. soo leen majoritaire di ngeen am chance su génn. le huit boobu woowu